ñetteelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi benn guddi benn sëriñu yawut bu ñuy wax ni ko dem dafa dem seeti yéesu mu ne yéesu xam nanu ne yàlla moo la yónni ngir nga jàngal nu say kéemaan ñoo ko firndeel yéesu tontu ko ne ci dëgg-dëgg maa ngi la koy wax képp ku judduwaatul doo mën a seede nguuru yàlla nikodem laaj ko naka la nit di judduwaate kenn mënul dellu ci sa biiru ndey yéesu ne ko lu juddoo ci nit nit la waaye lu juddoo ci xelum yàlla xel la waaye nikodem déggul wax ji yéesu ne ko na musaa sampe woon ab bant ca diggu màndig ma takk ca jaan ja mu defare woon xànjar faw ñu yëkkatee noonu doomu nit ki ngir képp ku ko gëm am ci moom dund gu dul jeex yéesu wéy ne ndaxte yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu jeex te doo sànku mukk yàlla yónniwul doomam ci àddina ngir mu daan nit ñi waaye ngir musal leen képp ku ko gëm deesu la daan waaye ku ko gëmul daan nañu la ba noppi ndaxte gëmuloo ci turu doom ji yàlla am képp léegi ma laaj leen fukk ak ñett lan la waxi yéesu tekki bi mu nee war nañu judduwaat mu ngi tekki ne war nañu judduwaat ci sunu xel jaare ko ci xel mu sell mi bu nit ki judduwaatee xel mu sell mi mooy dugg ci xolam ngir nit ki xam yàlla am cofeel ci moom te déggal ko su ko defee dinañu fasaat kóllëre ak yàlla fukk ak ñeent naka lanu jaanu xànjar ja musa lonkoon bant ba di fàttale yéesu képp ku xooloon jaan ja muccoon nga képp ku xool yéesu ni musalkatam dina mucc ci seytaane ci bàkkaar ak ci dee fukk ak juróom lu tax yàlla yónni yéesu ci àddina yàlla yónni na yeesu ci àddina ngir mu musal nu ci mbugalu sunuy bàkkaar te jox nu dund gu dul jeex